jërëjëfe sëriñ Touba. jóge cig lëndëm tàbbi cig leer loolu dong moo waral mbégte mii wajalu masgana alxuruji min sulaam li nuuri wa fianu kulla man salaam wajalu daban maskana tibaagi ginnaaw bu ñépp seetloo ne lëndëm gi ci dëkk bi fokk natt weesu na ko ba sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd wér waxal ko boppam Touba ca kanam jóg indi opération leeral daaw mu fàggu junniy làmp ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk 1960 lampadaire ren mu indi ñetti junniy làmp ñu sof ko ca fa ñu yemoon ci opération leeral ku daaw gi fagguwaale it oto boo xam ne ni monte làmp rekk lay liggéey ci diirub weer nag première phase bi nii la tëddee gannaaw recensement bi nga xam ne ni opération leeral def na ko Touba mosquée yóbbu nañ fa juróom benn fukki làmp gaar bu ndaw juróom fukki làmp guy mbind juróom-ñeent fukki làmp xayra ak paaleen téeméer ak ñaar fukki làmp njenne juróom-ñetti fukki làmp gaar bu mag juróom fukki làmp gede téeméeri làmp sura téeméeri lamp kër ñang téeméeri lamp ndamatu téeméer ak ñeent fukk daaru maanaan juróom-ñeent fukki lamp daaru xuddoos téeméer ak juróom-ñetti fukki lamp quartier maam Cheikh Ibrahima Fall téeméeri lamp daaru minam téeméer ak ñeent fukki lamp loolu lépp boo ko boolee ci première phase bi muy junniy lamp ak ñeenti téeméer 1400 lamp ci biir corniche bi واجعله مسجد الخروج من سلام للنور واغفر كل من سلام وجل دابا مسكن اتباع لسنة الله مسكن ابتدائي وجل يا ربي هاب مسكني في أرضنا لك وللمعزين weddi gis bokk ci du samay wax de waxu askan wi la. waay waay waay waay waay waay lii man nu ma ko doon mën a sant sax xaw ma ko. jërëjëf yéen waa Touba ca kanam ndax lii yéen a nu ko defal. te li ngeen def ci dëkk bi yàlla gis na ko sëñ Touba gis na ko. tool bi doo ba léegi mu ci am laam pot laam bi. nag ah, moo ngi nii nag fàng ah. yasunam njaay di boo araw suñ sugg si nag yéen daal ca kanam rek suñ njaay mi génne fi ah. leer gee ko waral ci biir kër gi laa nekk di ko jaay si am xale bu lëndëmee hmm. bu lëndëmee du ñu meññu tey ñu génne suñ cere génne suñu fonde génne suñu kelamante lépp mi ngi jar ñu ne di ñaanal doy na waar doy na waar fii ni meloon mëni su ko wax sax mëni su ko wax sax Touba ca kanam hmm. man de maa ngi sama juróom-ñaar fukki at waaye loolu ñu nekk ñu liggéey sëñ Tuubaa di ko kër gu ñu liggéey mu doom yéen a jiitu lékkule alal jàmbur naku leen nit sëñ Tuubaa ngi liggéey te nit ñi gis nañ ko fu yoon yàqoon ci dëkk bi defar njël ko fu leen dama leeral njël ko yàlla mu réewal ak sëñ Tuubaa tax ñu liggéey fa dëkk bi leer na lan la matul yéen daal kanam ak kanam rek bàkk sëñ Fallou Mbacke yàlla def xéwal gu ni gaañ démb rek lañ sàcc sama caméra ndax lëndëm bi Touba kanam moom ca kanam rek sëñ Tuubaa bi xanaa moo am fay ngeen ci mbedd fu nu fii ba minu mën nañoo def bitig yi duñ teel a teg duñ teel a teg fii ba minu hmm. tubaarkàll bi nag ñu ngi ko ànd commune bu Touba ci njiital Abdou Lahad mu jox ñu équipe bu takku ak seeni jumtukaay tubaa ca kanam indi équipe bu takku ak ki jumtukaayam muy yoo xam ne ni waxtu nekk dañ leen di liggéeyloo danañu teel a xëy dinañu guddee wàcc ñu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen bàyyi ak Serigne Touba ndax kat mbég mi mbégum sëriñ bi rekk lañ ci dàkk. Touba ca kanam nag lépp ñëpp leen ku ne ngi ci biir Touba leer nañ bég ngeen de waaye seeni ñaar téeméer la kon na ngeen bàyyi xel ne sàmm gi nag ñun ñëpp la war. lu ngeen ci gis te jaarul yoon rek yëgal leen ko waat Touba ca kanam te soññeewaat mbokk yi liikat bu dakkul Touba day leer nañ ñaari téeméer képp ñu leeral Touba mu leer nañ mbokk yi jar na ko de. lu jot lu jot yàlla def ko. Mhm. sant nañ bu baax a baax a baax. ca kanam nag lépp ñëpp lenn ku ne ngi ci biir Touba leer nañ. bëgg ngeen de waaye seeni ñaar téeméer la kon nangeen ngeen bàyyi xel ne sàmm gi nag ñun ñëpp la war lu ngeen ci gis te jaarul yoon rek yëgal leen ko waa Touba ca kanam te soññeewaat mbokk yi liikat bu dakkul Touba day leer nañ ñaari téeméer képp ñu leeral Touba mu leer nañ mbokk yi jar na ko de te bu ñu ko leeralee mu leer bu ñu ko leeralul mu leer ndax kat ni ko sëriñ mun Mountakha di waxee saa su nekk sëriñ tubaa ñaan na ko ci mat la bul faw seeni te tudd na ne kanam dana ko dundal dana ko sàmm. ci Touba. na mu la ma déglu faw kanam mii. dana ko dundal dana ko bu tubaa ci kanam dem mukk di la bàyyi gannaaw. seeni ñaar téeméer sunuy ñaar téeméer Touba leer nañ jërëjëfe Sëriñ Touba wajalu masganal xuruji min sulam li nuuri wafirnu kulla man salam wajalu daban maskana tibaagi li sunnati la maskana wajallu yaa rabbi ba maskani fi ardina laka walil maizani wal taami daari anil fujuri wal fisqi wal baatili fi duri wan fil waba wal balaya kulla ana wati surbaha wa akla wajallu barkeel si yéen liggéey te ànd ko ñëpp waaw te ànd ko ñëpp nan ba xamatuñ lu ñuy ah, ca kanam ca kaw ca kanam rek ca kaw ca kanam rek kon ngalla bu tubaa ca kanam dem mukk di la bàyyi gannaaw seeni ñaar téeméer sunuy ñaar téeméer Touba leer nañ jërëjëf Serigne Touba